Hello? I, uh, I just got your missed call. Where are you? Missed call? Um, where are What is that number I called you? Pardon? the number I called you? No, this was not the number you called. Yeah. Um, I'm just regarding a boy um, opposite my house in the pipeline. Yes. Yeah, that car was you know I'm opposite. I'm staying in that compound. yeah. Our house, family house. Yeah. And he was telling me that you are the he, he said to me ngane mune ngane ya mom kerbi. Aha. Wa mom lolo mune I'm on kerbi. Wow. Wa man ni to ni to ye tun bo ko mom. Ku mom kerbi ak ku mom kerbi ñu xam nañ to mom parce que ñu ñoy di right. Ñu ñu jël suñu dustbin bi def ko foofu noonu ci biir. Wow. waaw mu ne yow nga ne yaa moom kër bi. waaw léegi. waaw léegi loolu laa bëggoon a comprendre mais yaa moom kër bi parce que man kër bi moom kër bi ku kër bi kenn moomu ko foofu noonu. ah ok. waaw foofu moom ku ne moom moom kër bi. waaw ah man daf maa jaaxal parce que man ñun foofu yëpp su ma ko moo am kër yooyu foofu yëpp su ma ko këram mu ko yooyu yëpp ñun foofu lañ dëkk opposite waaye bu mu ne nga ne yaa moom kër bi man daf ma jaaxal. borom teeku am na ku ku ku fa def firestone yi nii. waaw moom su ñëwee Gambie moom dañ koo tëj moo def firestone yooyu yëpp dafa daw su dawutoon di ko su ko fa fekkee so is a reserve land pour government. ah reserve land la pour government ku fa defoon blog yi moom dafa daw dafa daw moom dafa jógee fële mu ne ma moom moom kër gi. ok moom. blog yi man man su ma ko waxee kër la am si around boobu noonu. kan mooy sa papa. waaw. kan mooy sa papa yow. opposite. moo tudda naka. opposite ah dégg yow su fekkee yoo xam ne kër bi kay moom ah yow obviously war nga xam ku moom kër bi opposite foofu ñu ñu ma faa ñu faa kër bi moom bariwul de. ah sa papa moom moom foofu. waaw opposite opposite laa wax de ñun foofu su ko déggee yëpp xam nañ fa de foofu reserve land la foofu kenn kenn moom foofu noonu reserve land ku ko ñoom pour sampa foofu dafa daw. dafa daw li ko dañ ko doon ci kaso moom moo jël def def bloc yooyu yëpp teg ko mu ne foofu këram la waaye ñu ngi ko ut bés buñ ko téye rek dañ koo tëj. waaw soo moo tax mu ne yow nga ñëw nga ne yaa moom kër gi man loolu daf ma jaaxal la man daf ma jaaxal la tool. ah yow yaa yow yow yaa moom car wash bi. ah. car wash bi sa car wash la. man maa fa man maa fa indi boy bi man maa fa indi boy bi. ah pour mu def fa car wash. waaw man maa indi boy bi foofu yow yaay kan yow naka nga tudda man moo man man maa yow laa wax naka nga tudda man Ibrahima laa tudda santa. ah Sarr. Ibrahima Sarr. waaw. ma fonda foofu ku sant Njaay moomu nekk boor boobu ak Sila. Ah, moom xam nga foo ma ko. waaye bu ma nee yaa moom kër bi bu ne yaa moom kër bi. déedéet waaye naka nga sante yow pour wax loolu. ah. lu tax eh, ma bëgg a comprendre. ah lu ma bëgg yow nga ne yaa moom bi man loolu laa bëgg a comprendre man. mais yow lan mooy sa affaire ci loolu yow police nga ndax eh, ma laan autorité nga nekkuma police nit laa rek waaye nekkuma police. waaye booy bi man maa indi booy bi foofu noonu booy bi man maa ko fa indi. Mm-hmm. waaw man maa ko fa indi foofu du këri kenn foofu risaaf laan la. waaye risaaf laan la de. dem nga police mbaa eh, lance office ba find out loolu. ah. man dana dem nga. Eh, man de ma posé ma fa waaye dañ ne foofu risaaf laan ku ko dafa am ku ñëwoon foofu noonu mu ne këram la mu doon di ko. samp waay waay ku sant Sarr yow wàcc maan nga foofu xanaa ndax. di di yow déggoo lu ma wax de ma ne kooku man maa ko fa indi pour ma ne yow ndax wàccumaan nga foofu ndax lu tax nga sant Sarr. non man nekkuma wàccumaan de man nekkuma wàccumaan nga laaj borom kaawas ji dina la wax man naa dina la wax kan la. déedéet man lu ma bëggoon a comprendre. mane ni bi diyamo la ikat diyamo fo aye sene ya muslimu musul muslimo muslimo ama ndanko bang ndanko bang ndanko bang muslimo na bi diyamo la akat diyamo fo aye sene ya akana ah. fene ya fo ah. muslimo nya takawole nyam ni tambu sila ta fo sila ni mu joble ta fo job ni mu njay afo njay ha ah? ndebe yin kala menna nko ite ko itere tam korda nyinti iko korda ni ko itale de la kawla lo ah hani bari ite hani bari ni ko itere tam korda de la fawle confirm da ma ni ko itere tam korda and then we come for the produit bita parce que o korda de do mbulo le kono mo won tam o korda bo o muru ta okay o muru ta mo won tam so iko korda mari nyin iba nyini kan aboritale ya amma nin ta lumme ta lota na ta lumme je te te te ari ¿Ah? aburitale aburitale okay ite lemu mohamed sarti Ah? ¿Ah? mohamed ah, sa ima mohamed sa ani ite ko ite mu kont malo nyaadi sa wata iman to iman to karamba ba ni on tera salo na kafu ya kompanye ke tam koranje ha wo mu to nyaale tamu Não deletamos. Tá?